njëkk ziar Sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan mu yàgg fi tëwé di ñaan yàlla may ko kàttan liggéey yi mu bëgg liggéeyal suñu Tuubaa yëpp mu àggale jàmm bu suñu yeneen liggéey maa ngi nuyu mbokku taalibe yi di nuyu mbokku buddi yëpp di nuyu sénégalais yëpp leen ñaanal jàmm yamul rek ci parrainage yi waaye wax nga dëgg ba ma ne dama bëgg nekk candidat rekk ci la waa Touba jug taxaw declaration bi jëkk jib dan ma ci jàppale bu ma sëkk ay ay déclaration yu bari jóge Touba te nag damay wax ñi ma jëkk investir ni dama bëgg ma doon candidat waa Touba la di ay mouvement yu bari rawatina étudiant Touba alhamdulilah bi nu xamee ni man awma lu dul Touba alhamdulilah bi nu xamee ni dama compté bu baax ci Touba puis yi ñëwee gis ngeen taxawaayu waa Touba tey yéen li ma doon dox man ak yéen ko dundandoo ba ma fi accès ba tey ak si fi 9h30 ba tey maa ngi recevoir di sant di gërëm ñin ma jàppale si parrainage yi te mouvement yu bari jotuñu ñëw wala am na ñoo xam ñëwoon nañ sax dañu jot dellu ndax li ma yéex ñëw booba maa ngi ci sëriñ bi ci mbul kayal di wane ni wax dëgg yàlla awma fayu waa Touba ndax xam na ni man ak moom ñoo bokk sëriñ Touba te fii laa bokk dama jàpp ne lu jot yomb te man dama amoon principe yu ma ko jëlee xam nga Ablaye dama ko Karim ni que tant que candidature Karim amul jafe-jafe sama candidature dama see jël tekk ci suuf loolu nag ngor rek la sama diggante ak kon bi nga xamee ni. loolu mo am manuma won nekk lu waxtu wa su joté pour man waxtu mo don bi cour suprême àtte ak conseil constitutionnel jël décision waaye nak li wolof di wax dal na ma lu jot yomb bi mu joté ba ma yëkkati ko yomb na ñëpp doon wax candidature bi dafa ko yéex def waaye ci 45 jours mo mobiliser plus de 400000 000 parrains kon wax deug yàlla wane na ni ma ngi ci biir xolu sénégalais yi te loolu bég naa trop waaw yu amul solo la lu tax amul solo parce que man ku xam valeur yi nga xam ni moom laa gëm jukko yu rafet yu may wane mënuma dem di ànd ak Macky Sall mu nekk sama gannaaw ma nekk mu nekk sama gannaaw di am lu may manipuler Macky Sall su ma noon dara si man bàyyi naa am lay Wade bu yàgg su ma noon dara si man dama ko opposé fii si Touba rawatina élection législative yi mujj yi nga xam ni opposition bu metti la demoon na ni ba demoon nañu ba décider ni dañ may arrêté jamono yi nga xamee ni maa ngi si biir Touba avant avant ñu arrêté ñoom Serigne Cheikh loolu yëpp suñ koy def booba dama leen të man nu dara si man Macky Sall mënul nekk sama gannaaw te aussi chemin boobu ngay wax di wax chemin deuxième tour Macky Sall ngay jàppale man gëm naa ni deuxième tour suy am sama gëm-gëm la te di ko ñaan maa ngi si dëkk bu tedd bi maa ngi fii si suufu Touba di ñaan yàlla defal ma ko gëm naa ni deuxième tour incha allah man ak Macky Sall ñooy opposé wu te sénégalais yi commencé nañ ko gëm li ma am si pare naa si diir bu gàtt doon na indicateur parrainage nag du électeur électeurs yi gëm na gëm naa ni ñoo ëpp téeméer yoon ndax bari na ñoo xam ni woo naan man ni ma war da yéex jug fekk na nu ñu parrainé ba pare waaye yow la noo ba teel kon nag man maa yóbbu Macky Sall deuxième tour su neexee yàlla gañe ko kon xalaatuma jàppale Macky Sall deuxième tour ku ko dégg ku nekk rek da xamni man français fa amna ci gis-gis bu wóor man dama ni premier ministre dafa wax assemblée nationale ni un Sénégal de tous et pour tous man ni ko moo tous man li ma bëgg moy un Sénégal d'abord pour les Sénégalais ensuite pour tous ndax Sénégal mënul jël boppam tëju ni soxlawuma kenn Sénégal ñi mu soxla dafa bari waaye lu noo def li nekk nañ si jiital njariñu Sénégalais yi ba Sénégalais yi mën si gis seen bopp Macky Sall defu loolu daf ko jox société étrangère li jëm si franc fa sama position mooy diggante franc fa ak euro war nañu seet yan relation la noo def ba franc CFA am véritable ñu am souveraineté économique mais ma si ñi nga xam dañoo wax rek dañoo ñëw jël franc CFA bàyyi franc CFA gas ko suul déedéet dafa am base boo xam ne am nañ ko si franc CFA mooy réew yi nga xam ne dana bokk franc CFA réew yooyu dañ ko war yaatal su ma soñoon Afrique ne unique lay am su mënul am si Afrique mu am si. CEDEAO te hmm. loolu bëri na ay président yu see liggéey si biir CEDEAO kon nag problème bi du franc fa xam nga luy problème bi mooy suñ diggante ak euro ak fonds yi nga xam ni dañ koy déposer en garantie te suñ ko bàyyi woon fii mu profiter Afrique xam nga mënuñu comprendre que ay réew yoo xam ne dañu soxla alal joo xam ne dañ koy liggéeyee lanu am ñu koy jox réew moo xam ne moo leen di laba lebal mu York comme garantie ba pare parce que mo garantie franc non non am sunu monnaie bop meuna na tudd franc CFA mën na tudd beneen franc waaye nak mu am indépendance ñu am souveraineté économique man du wax di sali yow rek di wax français fa nañ dit dindi li ma bëgg moy sunu indépendance bo xamné français fa jaratul benn monnaie di ko garantir ñu am sunu indépendance su côté bobu ba am sunu monnaie nak bokk ak Afrique de l'Ouest parce que loolu mooy wane doole Afrique bu leen fàtte ni Amérique Amérique benn Amérique États-Unis benn euh, monnaie la nu am muy dollar bul fàtte ni Union européenne benn mone la nu am muy euro réew yëpp bàyyi seen mone dugg si biir euro benn réew moo si gën mooy Angleterre yeneen i réew ñu bëgg dugg ci biir monnaie boobu. moo tax tey nanu bokk benn xaalis suñ ko bokkee rek commerce bi ci Afrique de l'Ouest day gën am doole te loolu dana fexe ba unité africaine am parce que unité africaine mooy tax ëllëg Afrique am doole waaye du suñu réew yu ndaw yi rek mooy man am doole moo tax dama danoo génn ci franc fa su ko génnee wéet néew doole dangay fexe ngeen àndaloo yéen ñépp bokk xalaat ba dox seen diggante ak France ba li nga xam ni mooy gàllankoor francais CFA ngeen jël ngeen jël seen indépendance seen souveraineté économique ba loolu bañati am moo gën ngay wax damay génn si franc CFA kooku débat boo xam ni képp kuy économiste walla ngay candidat mën nga ñëw ñu waxtaan ci ma yeey la biir bu gàtt boo xam ne na ni yu damay tëb rek génn franc CFA wax ji mooy ne franc CFA am doole boppam am indépendance boppam boo xam gàllankoor loolu moom bokk loolu moo ko tax jubda ba ma ko amee ba ma ko defee rek laa woo tous mes frères waxuma waa PDS rek ñëpp laa woo te nag su ma yàlla defee li ma bëgg président Macky Sall deuxième tour li muy jëkk def mooy reconstituer la famille libérale ñëpp dinaa leen seeti tàllal leen loxo ni leen kay nu ànd xeex président Macky bi nga xam dafa bokkoon si ñun boddinu boddi Ablaye Wade boddinu kon nañu fexe ba mu jug fi loolu lay jëkk def suñu paree nag ma yaatal ko si képp koo xam ni da nga bëgg réew mi te am nga xel mu rafet réew mi benn xel mënatu ko yor xam nga réew mi lu koy yor mooy équipe boo xam ni nit ñu dëgg la bëgg nañu nu jëriñ réew mi seen xol laab na moo loolu mooy mën jëmale kanam réew mi moo tax il faut mu am reconstruction de la famille libérale loolu gëm naa ko danaa leen fas yéene dajale su neexee. loolu moom mën naa ko waatal waaye nag. ñëpp xam sama diggante ak Ablaye Wade xol bi daa fekk Ablaye Wade bu rëy boo xam ne mi ngi mu mbir xol te li ma mën defal Ablaye Wade si rendre ko omage même si doon Karim du ko man def parce que su ko bëggee def dina wax papaam la te man danaa am sañ-sañu booba def ko Ablaye dafa mérité ñu def ko hommage bu ëpp bu Mandela bi mu am Afrique du Sud parce que Ablaye Wade lépp jox na ko Sénégal lépp jox na ko Afrique dooleem xam-xamam alalam lépp mu joxe ko mu jëmee Sénégal foo xam ni suñ ko bàyyi woon dana weesu fii Macky Sall moom moo waroon njëkk rendre hommage Ablaye Ablaye Wade comme defu ko du moom rek la am si ay doom ñu daan ko rendre hommage mérite da incha allah suñu yàlla mayoon ndam daan ko defar loo xam ni dana fay mukk ndax mérité la ko te ñëpp xam sama diggante ak Ablaye Wade ak fi mu àgg sama dara teqale wul nak te duma ko dara teqale nu sama bëgg-bëgg loolu mi ngi si biir bëgg-bëgg yi nga xam ni moo gën tax man il faut ma dem élection wala nu toog ba duñu bañ am candidat suñu amul candidat Macky Sall dana jéem jàll premier tour te su jàllee premier tour li nu bëgg si taxawaay bi nu war am si Ablaye Wade loolu mën nañu jafe looloo tax ma jóg yëkkati sama candidature man sama candidat na naxasal ay projet Macky Sall pour fexe bu bañ jàll premier tour pour néewal ko doole ñu yóbbu ko deuxième tour suñ ko yóbboo deuxième tour ñu jël nguur gi def li war nag sénégalais yépp gis ci seen bopp réconcilier le peuple avec lui-même moom dafa xaajaloo réew mi dafa paccoo nguur gi yooyu yépp ñu jële ko fi jëmale kanam incha allah nguur gi ba ñépp mën ci gis seen bopp di suñu bokk taalibe di suñu mbokk ñu bokkal bi di sénégalais yëpp fu nu mën bokk Eglisbi bokk waa église bi suñu bokk baykat yi suñu bokk ouvrier yi xale yi jigéen ñi ñëpp mën si gis seen bopp te sénégal loolu mën nañ ko def il faut yàq jug sénégal il faut ñoo xam danoo wax sénégalais yi loo xam dañ koy def waaye loo wax rek ëllëg nga tebbi loolu loolu moo war jug si réew mi te ñun nag ay valeur la noo gouverner Sénégal valeur yooyu mooy ngor jom kersa te bañ war benn yoon sénégalais yi loolu mooy suñu bëgg-bëgg euh, di am mbégte ci interview bi dafa bett sax waaye mënul woon ñàkk te di nuyu éditeur yépp nag tàggoo rek ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi tëwéer ñaanal sama mbokk talibé yi ñaanal sama mbokk jullit yi ñaanal Sénégal yépp ñaanal Sénégal ndax Sénégal kat Macky Sall ñu ko duggal ci guddi gu metti ñu ngi dem élection ba fii nu toll xamuñu yan condition la no demee élection mu bëgg ñu jaay doole imposé ñu ay règle boppam loolu mosul am ci Sénégal waaye nag gëm nañ ni mag ñu baax ñu tëdd Sénégal duñ ko seetaan ku fi bëgg indi fitna bëgg fi jaay doole sa kaw lay këpp kon sénégalais Sénégal ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla na fi jàmm sax pexe ñi nga xam ne dañ fi bëgg indi fitna rawatina ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi seen pexe yooyu yàlla fexe yàlla deful nu yiw goo xam ne dara du si am Sénégal jëm kanam